tolo ak ñaar fukki fan ak ben ci wéru janvier ci atum 2012 ci lañu fassiyene tàmbali leral téré bi ñi wax al inshaau sahih ci xaj bu ñëk bi téré bi nak téré bu am solo la ku ñi wax ahmad Muxtaar moko ta'lif ñi ko talifé fee ci liba muy téré bo xamné dañ koy taalif ngir mu jàppale kiy jàng xalaat yi mu am mu man koy wax ci anam gi gën a mucc mën koy bindit ci anam gi gën a mucc mu def ko nag juróomi xaaj tàmbale na ci al juzul awwal ba ci al juzul xaamis xaaj bu ci nekk it te ko def ay leçon def ko ci ay tem yoo xam ne tem yu wuute la tem bu jël bu nekk dana def photo woo xam ne ni day jëm ci thème boobe ndax photo wi day dimbali kiy jàng dana ci indi ay jumla ay phrase dana ci indi tamit ay vocabulaire maanaam ay baat yoo xam ne ni dala koy jox baat yooyu nag bu noppee mu wan la nu ñu jëfandikoo baat yi su noppee dana indi li ñuy tuddee langage muhadatha muy leçon bim la jàngal mu defal la ci ay laaj yoo xam ne ni laaj yow da nga koy tontu dañ la koy laaj nga tontu am na ci tamit beneen yeneen laaj yoo xam ne it dalay bàyyi nga dem bind ko wut kaye boo xam ne da nga ko ciy bind yenn yi dalay indil ay jumla ay phrase ne la àggale ko yenn yi dalay indil ay baat ne la baat bu ci nekkee def ko ci jumla bu am njëriñ muy phrase bu am njëriñ kon téere la boo xam ni téere bu am solo la ku ko jàng ni mu waree jëfëndiko tamreen yi di ko gàtt rek dana japp di lol ci yow nga mëna wax lo bëgg wax ci anam gëna mucc mëna tamit bind lo gëna lo bëgg bind ci anam gëna mucc téré bi fi la ko tàmbale ad darsul awwal muy première leçon bi maada amalu kulla sabaaxin lan laay def ci suba gu nekk suba gi bu ma العبارات الإنشائية مي فرازين خمنة دينكو بند بفره مي جملة ين خمنة جملة يمدلا والمفردات مي vocabulary مي أي بات دخلوا جس لونك أي بات ليدون نك بي ما نكني لين جس ندفع أم أي مفردات أم نفي table أم في تلة أم في لال أم في machine ordinateur أم في بان noonu lañ koy toppe loolu ay mufradaat la mufradaat yooyu nag boo ko amee nag léegi nag da koy boole mufradaat bu nekk dañ koy dañ koy boole moroom ji bu ko defee mën ñoo jox wax ju am njëriñ mata anhadu kañ lay jug sabaaxan ci suba maanaam suba gi kañ lay yeewu tushriqu shamsu jant bi day fenk yadharu day feeñ annahaaru bëccëg bi bëccëg bi day tàmbalee génn mu tàmbalee leer تدق الساعة مونتر بلاي سنة سبعة ستير توقظني لمياء أمي سمياي أفتح عيني لمي خب سمياري بد لمي أبي سمياري بد دخول لحد ما فيك مين لو أروى دمي جس السماء الصافية أسمان سوسات تسل asmaaw damay dégg siyaaxat du yuuki sëq yi di sab ndax day fekk bët set anhadu damay jóg min sariir yi ci sama lal bi suraatin ci lu gaaw bu ko defee dama daan dama daan bëreet jug ci sama lal bi usabbixu ma nuyu waalidayya sama ñaari waajur sama papa ak sama mère sama yaay wa ixwati ak sama frère yi sama mag yi ak sama rakk yi kayfa aatani nan lay sonne nan lay yittewoo bi hindaami hindaam moom la ñu wax propriété muy sama jekkaay sama toilette ci wàllu set ci wàllu col ba bu ma génnee ku ma gis xam ne man mi waaj naa agsilu wa ci damay sëlmu raxas sama xarkanam xar kanam wa udunaya damay raxas sama ñaari nopp wa raqabati damay raxas sama doq gi sama baat bi wa saa idaya damay raxas sama ñaari loxo ñu koy wax përëg tambalé loxo ci cat baram yi ba ci mbag mi lepp dama koy ras wa qadamayya dama sama ñaari tank unashifuha dama koy fendil bil shafati ci ab servette bu ko defé dama jël servette dal koy fomp ba tooya bi dañ sama yaram dama peñe shaari sama kawar bil musti ci peñe wal firchaati ak moom la ñuy wax brosse à cheveux mooy kóom albasu damay sol siyaabi sama yére atanaawalul futuura damay ndékki atanaawalul futuura bi moom la petit déjeuner adhabu ma dem ilal madrasati ci école bi day def nag leçon bu mu indi ba noppi ba jàngale ko ba noppi day ci indi nag yëg-yëg bi nga am ci leçon bi ashuuru wal awaatif mooy yëg-yëg ak sentiment bi nga am ci la soo dul doon jàngal maa axla ak a neex maa axla nadaafata set daal dafa neex innaha moom set te surlu ni damay kontaan loo nee set day tax mu bëgg day tax tamit ku ma gis bëgg kon noppi na ci leçon bi mu ñëw léegi nag ci tamrin yi yi ñaari xaaj la koy def tamrin yo xam dañ koy bind ak yo xam dañ koy wax mu ñëk ci tamrin bi ci bind lil muhadatha muhadatha mom lañ wax dialogue wala bok langage nga xam ni ñaara koy sekk wala bok mbolo koy sekk ayna nahnu alana aana fuñ nekk léegi loolu yi waa tontu ayna kuntum fi athna al-layl fu ngeen nekkoon ci bir guddi gi mata stayqadtum kañ ngeen yeewu متى يلوح الصباح كن لا سوبا دي متى يظهر النهار كن لا بتك بي دي في أي ساعة تستيقظ بن أر غيو من يوقظك كن مولاي ماذا تقول له لن غكاي وخ لن غاي ماذا تفعل بالصابون لن غاي دف صابو بي بماذا تسرح شعرك لن غاي بنيا سكور ماذا تأكل صباحا لن جاي لك تسوبا يوي تونت جيران كوي وخ إن سخ ما يلي نغا كوبي لي نيو موم نانكو بينات عصام أو ترلا ولد صغير خلب دولا ينهض باكرا داي جوك تي سوبا تيل يحب المدرسة داي بغي ويذهب إليها داي دم تي إيكول masruuran ànd ak kontaante ànd ak mbégte loolu moom dañ koy bindaal noonu la ci kaay bi rek ñaareelu tamrin bi mu ne akmilil jumale taaliye na nga complété phrase yi di ñëw yadhabu saidun said day dem ilal madrasati ci école bi maa ànd ak nangam nga àggale ko gasala raxas na nabi nabi raxas na nangamam wa ak nangamam wa ak nangam kon foofu mu def ay tomb yaa seet wax ju baat bi fu war a dëkk te jekk ci wax ji nga teg ko fi ya siixu day yuux wala day sab lay gale kon fii moom li mu laaj rek mooy manque-manque yi fi nekk nga aglo ko adxil na nga dugal kulla kalimatin moo bu nekk baat bu nekk minal kalimaati taaliyati ci moo yi di ñëw fii jumlatin mufidatin ci phrase bu am njariñ maanaam baat yi di ñëw baat bu ci nekk da koy jël def ko ci wax ju am njariñ al mustu peñe nga dugal ko ci ab jumla al futuuru ndékki nga def ko ci ab jumla al madrasatu école nga def ko ci ab jumla an nadaafatu set nga def ko ci ab jumla tamrin moom la ñuy wax pratique wala exercice euh, boo xoolee kii tiim kii nekk ci photo bi jëmm ji dangay gis ne dafa tiim lañuy ñuy tuddee mirsala lavabo lañ koy wax lavabo am na it lu nakk ci kanamam ñu koy tuddee miraatun muy ab seetu am na yit fii ndox mi di génne ñu di koy wax sunbuurun wala boog xanafiyatun mooy ab robinet